baax jàpp nañ ñi saa yu saa yu njaga dafa góor ñu mel noonu am jigéen ñu mel noonu saa yu doyalee rek lu ñaaw la ñuy wax ok dafa mel noonu mhm. saa yu doyalee gis nga ku góor ki xëy na tey damay wax ni euh, am na lu mu bëggoon wala am na lu mu doon wër mais am la góor ñoo xam ne njaga xam nga leen ah tout le temps bu ñu takkee jabar buy ëmb ñuy bàyyi dañ koy seen nature lay doon waaw mais oustaz ka baal ma bëgguñu jigéen bu ëmb bëgguñu gis nga nag kon daal jigéen moom objet la. objet la morceau fabriqué la daal ci ci ci société. mais daal ñoo xam ne bu ñu ëmbee dañuy bàyyeeku. non mais déggal li oustaz wax. Hmm. nga takk ko fekkoo ci moom ndaw. waaw am na lu baree baree bari luy waral jigéen du am ndaw sax. dëgg la. waaye yow nga takk ko. amul ndaw nga sànni ko yow ñaata ndaw nga yàq. waaye léegi déggoo li ma léegi nag pour lan loolu fan la ñu teg loolu ba jël jigéen ñi di leen utiliser di leen sànni. te bu jigéen tey defee lu métti góor. ñu ni dafa bon wala dafa nangam dafa hmm, hmm. nangam. xam nga am na loo xamante ni oustaz toujours ba waxante ko ak yow. Mhm. bu ko diine daganalee it dafa rafetul. mais du du nanguwu ko mais du du yëfu diine. li gis nga problème bi. Mhm. du yëfi diine xel la ak aada. est-ce yaa ngi dégg. Mhm. parce que l'islam neewu la par force. da ngay takk l'islam waxul na nga takk ko musta sëy de waxul takkal ku musta sëy dafa ne ñeenti jigéen ñoo am yaay takk ko la neex tunkixul mar ali arbaa ñeent bi maaliha da ngay takk jigéen ndax dafa am alal pour nga wéeru ci kawam wala xasabiha wala askanam ngay tiitaroo si la sant wala mbaake naa ko takk euh, wala wala wala laay wala nangam ngir utee ko daraja mhm. wali jamaali ha wala ma takk ko ngir taaram tiitaroo ko wali diini ha wala nga takk ko ngir diineem yonent bi ñeent la wax waxul ko musa sëy waxul ko musa sëy parce que jàngal nañu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, xadija bi muy sëy moom mooy aawam sëy na ñaari yoon mhm. hind takk na ko atiq takk ko mu doog a sëy ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul am amal na ko ay njaboot yonent bi mhm. fekk na ku musta sëy mooy aïcha ñu sëy ñoom ñaar amu fa doom yaa ngi dégg tey jii euh, xam naa xëy na dañu déggantal mais dama ni la. Mhm. góor laa góor boo demoon ba gis jigéen sëy at moom yëg ne amoon ndaw toog leen yéen ñaar parce que ña ñaata cause mooy tax du am ndaw naa daanu mën nañ ko violer mën nañ ko nangam wax naa la sax toogal nga laaj ko. Mhm. mu degul ci dëgg njaga lan moo tax amoon ndaw bu nee la dama mus a daanu demel njortul rafet dañ ma mus a violer kan la mu jeex. est-ce que pare nga pour mais am na ñoo xam ne sax kenn defu leen mais amuñu ndaw. am na jigéen ñoo xam ni amuñu ndaw amuñu ndaw. yàllaa ko bind ci ñoom. Mm. léegi nag nga xool ci ñooñu tey parce que Adja pour man sëy du du bànneexu kawalal doonte ci la. ndax doo ndax góor guy dem di takk njaga est-ce que mës ngaa gis ci àdduna góor gu dem di takk naa xoolal leen ma faare ndax ku mën a am doom la déedéet wala déet wala xoolal leen ma ndax ku mën toggul dafa am yoo xam ne wërsëg la ci biir sëy daf koy fekk si bokku ca bokku ca nit am doom mu ngi mm. dépendre ci yàlla mën a togg sens la ci jabar mm. ah am na jigéen joo xamante ne xadra u timmi la yonent bi dox moytu leen ma gàncaxu sën ñu ne yonent bi lan mooy gàncaxu san mu ne koo xamante ni kaw yëpp taar la waaye biir bi yëpp safaan la mënta togg dafa xayadi yére yu tilimi ci ginnaaw bunt bi la koy def nangam nangam am jigéen joo xamante ni ñaaw rafetul waaye boo duggee këram bi saa su kër gaa ngay belli saa su ne kër gaa ngay xeeñ cuuraay njaga biteel bu ne dafa am kubéer bu mu war a àndal dangay ngay ñëw fekk jigéen ju góor mustaxam nga àndak moom mu nekk jigéen ju vert ngeen sa yéen ñaar même pas un mois seen communication wala mu commencé fo mën na téye boppam ci ñànk sëy commencé tàmbalee foofu léeg danga daan dégg ñu naan xeet sàngam ñoom avant ñu sëy dañu téye seen bopp ci wax waaye bu ñu xasee ba sëy moomatuñu seen bopp wala déet tey di fi am nga ci teg bët da ngay ñaan yàlla mu boole la ak mbañu rus mbañu rus dëgg la da ngay ñaan yàlla ajab yàlla boole la ak mbañu rus mbañu rus mooy xamante ni tey ji jomb na jomb na jomb na def ñu koy dut baaraam euh, sër bi lu tax tey yóbbu luñ ko euh, yóbbu luñ ko ci mbokk li li oustaz wax ñu dem mu jëm jox ko magam foofu noo koy jàngatee fa tooñ commencé xam nga tooñ fu mu commencé même même du jànk kon nañ jàppale xale bu góor ba mhm. du jànk waaye sër ba kan ma lañ ko waroon a jox même bu dul jànk xam nga comme dañoo tubaabee léegi ba tëddeetuñu ci kër yi nga xam ne bàjjen bi moo war a laal li tëddeetuñu ci kër yi xale ba ba muy ñëw saagam la yor ci oberge ba su paree lemal sër bi dugal ko ci saañ bi ànd ak xale bi jébbal ko ay mbokkam jël as tuut sa nga yor jox ko ay mbokkam nga koy jox mhm. waaye weer ko weesuwul nga ni damay dem ci samay même bu fekkonte ni jànq la bi takk na waroo dem ci sa ay mbokk di leen jox sër bi ñuy tàllal di xool olof dafa am lu mu wax dañ ne sër yooyu bët bu ne waru cee tege waaw loolu la war a wax loolu la ñu wax mm-hmm. kon yow waroo jël sëru jàmbur mu tëdd ba ngay tëdd moom kenn fekkewu lu tax woowul sëram ni ko kaay assisté mm-hmm. ñoom ñaar kese la woon muy sutura lu xew ci biir dekk soo paree lemal sër bi ba mu jekk nga dugal ci saak bi ci góor gu am sutura nga dugal ci saaj bi ànd ak moom ba ci yaayam donte la nga bëggoon amoo ko ànd ak moom ba ci yaayam lu tax sax nijaayam nga ànd ak moom ba ci yaayam génne sa juróomi junni jox ko ni ko jërëjëf maa ngi dellu ci liggéey bi yaay ji bu tijjee sër bi dina xam ne dara nekk. est-ce que du déception bi nga yaakaaroon ne xale bi jànk la déception yu rëy yooyu est-ce que du tax tamit nga am déception boo xam ne moom man da ngay bëgg miir njaga njaga effacé effacé tableau bi nangul góor nangu ma ko njaga nangu mënumaa nangul góor waaw ngay ñëw ci jigéen sax di yaakaar ndaw ñaata ndaw la góor yàq ñaata ndaw ah waaw góor a ko yàq waaye man uh, uh, xëy na ko góor kii yàqul benn ndaw yow bàyyi ma ñaata ndaw la góor yàq waaw ay xale yoo xamante ni seen yaakaaru nday lañu ñun Sénégal dañoo baaxoo loolu bu sa doom génnee sax góor wax ak moom sa fit dem na. ndax nee nga ñi ngi yàq sama doom. Mm-hmm. sa doom bu commencé xàmmee nga commencé naan ko bu kenn laal sa silib góor bu la woo bañal. dëgg la ndax loolu dañ koo fonk moom la ñu am moom la ñu am mooy mooy suñu sutura tey soo amee sa doom mu tëdd te du jànq da nga koy suturaal. Mm-hmm. dangay dangay dangay woo ay xaritam jox leen ndékkeek ay yooyu sax daal di nëpp nëppal mhm. ndax bañ sa doom weeru ndax bañ bañit ëllëg doomam am way dafa am loo xamante ni sutura la li ñuy wax naan cuisine intérieure mhm. ci biir néeg bi lay yem yaay ji dina xam xolam dina metti ah bu toogee nag ba gis loolu ci doomam ba ñu toog ba mbaxalal ko nag ba doom ji war a dem sëyi dina la yedd nag yaay ji dina la teg nga toog mhm. mu ne la nag dama laa suturaal soo demee ci kër googu bu ma fa dégg coow na nga muñal sa jëkkër na nga nangam ndax sa jëkkër ku baax la loolu dina yokk xale bi jom loolu dina tax xale bi rëccu la mu ñàkkoon ca na mu ko ñàkkee ak anam bu mu ko mën a ñàkke waaye ku góor kii li mu def yëf yi ñàkki kersa la def ba pare weddiwu ma lañ ko jiiñ ni moo ko def man weddiwu ma ko de xam nga lu ma jaaxal ci rimim réew hmm. daa bëri ñoo xam ne buñ dee yóbbu seen jabar yi ci auberge ba ab hôtel wala fenn foo xam ne dañ fay bëgg a wéet question bi may posé saa su nekk mooy lu ko waral su ma dee tontu dama naan dangaa bëgg sutura parce que xëy na xale bi ab jànk la te bëggoo muy yuuxu nit ñi xam ni yaa ngi def naka su noonu ci biir néeg yaa ngi def nuyu noonu kay noonu kay amul naka su dul yaa ngi def nuyu noonu yaa ngi def noonu waaw kay ndax jabaram la ndax jabaram la waaw loolu ngay def ci biir néeg bi te bëgguloo bëggoo nit ñi seen xel xalaat ko mhm. nga ni naa suturaal sama bopp mhm. parce que bëggoo nit ñi xam ne yaa ngi sëy ci kër gi mhm. wala guddi gi ñëpp xam ne tey da ngay joteeg sa jabar mhm. nga ne naa rawalee sama jabar ci sutura mhm. ñaar day am nag foofu après dañ koy def suturaal suñu bopp ba pare xawi waat suñu sutura dëgg la ah. mooy mooy sol caaya ba pare xotti ko merci waaw ah. ah, dëgg la yow yaa ngi suturaal sa bopp ngir rawale ba dem ab auberge wala ba ab hôtel ngir bañ ko xam ne yaa ngi doon sëy ak sa soxna waaw après nag nga tëdd ak sa jabar muy jànk nga gàdduwaat sër ba andi ci kër gi ni leen c'est bon dama doon sëy biig ak sama jabar ba résultat bii laa amee wala nga tëdd sa jabar mënoo àgg ci moom waaw nga ñëwaat ci kër gi ne leen jéem naa de waaye dafa xat dafa xat dafa nàngam dafa soccet yaay ji daal di koy jël yagar yagar yi dem hôpital daal di ut nu mu def ay garab yaay jay faji de waaw daal di ñu utal ko ay garab nga toogaat ci hôtel ba di xaar ñu andilaat la ko te pourtant de yaa ngi bañ ku xam ni da ngay sëy te ñu joxaale ko gel de. waaw ñu ko bala ngay sëy waaw njëkka la def lii. waaw ah kon moom weerul boppam. yaa ngi dégg ah. nga xam ne du ab jànk nga retourné waat ñëwaat ci kër gi ki ngeen ma doon may te ma doon tëdd ak moom démb. du ab jànk kon hôtel yi ak auberge yi lan mooy. ba pare lan mooy résultat ba après maam abu gisuma ci gisuma ci gisuma ci résultat parce que njaga njaboot dañ koy préparer albaladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi wala si xabu sala yaxruju ki nakidan yàlla nee na tool bu baax mooy am gàncax gu baax tool bu naatul du am gàncax gu naat pour man njaga ki ngay pareel ak njabootu ëllëg yow yow mii borom kër yaay njëkk def éducation ci moom war ni ko fii du jëmukaay du auberge du fii nangam bii mooy jëmukaay tey pour man bu fekkee ni da ngay dindi tuuma ni sa soxna am na lu ngeen séq yéen ñaar man bokk sama kersay bopp man sama kersay bopp jomb naa comme ça góor sëy ba pare ak ak yi ciy taq ak ni mu demee nga jël ko di ko jébbal yaayu soxna du orma pour man mu ciy teg bët wala wala bàjjen mu ciy teg bët pour man du orma am yaay bi dama doon sa doom voilà doy na doy na doy na ci kontaan nga parce que ku góor ki la ñuy laaj kontaan nga mm-hmm. kontaan naa yow sa jabar xam ngeen lu tax sër bi di dem parce que pour man du orma jëlal sër bi bu dee doy na la wóor na la nga denc yow ak sa soxna la parce que confiance bi dox seen diggante mu ëpp doole ka sa sa yaay yow ku góor ki confiance bi mu ëpp doole ka yaayu ku jigéen ki wala ay mbokkam boo li olof naan bu ñaar xamul bu ñett bu xaw ma ñaar xamul ñett xam na xaw ma mm-hmm. ça veut que man ak sama soxna xamante nañu mm-hmm. yàgg nañu génn nañu bu fekkee baax na xam naa parce que njaga ci biir ñaar ñuy bëggante góor day làmbatu di jéem. Mhm. est-ce que ñeme naa ko foon est-ce que ñeme naa ko raay au fur ngay dem ba kara avant ngeen ni sëy mën nga kaa xam mën nga kaa bañ a ñàkk mais yow mi bëgganteeg ndaw si njaga. Hmm. am na góor goo xamante ni xam na ndaw si avant mu koy takk. parce que lan am na benn melokaan bu mu ko jot a wan bu fekkee ne yomb na ci yow xam nga bu yombul ci yow xam nga mais ginnaaw yéen ñaar dem ngeen ci auberge wala ngeen dem ci beneen place am yu génnee ci yow góor. am am lu génnee ci moom jigéen. Mhm. nga bëgg a jël loolu pour sama gis-gis ñëw ba ci yaayu ndaw si ni ko xoolal wala bàjj li déedéet wooteel téléphone bu la doyee ne leen kontaan naa ci sama soxna jarul sër dem jëlal sa soxna boo leeg sa for mu yóbbu yow xam nga jël li ngay njege du njegenaay la jox jël ni leen am mu ngi nii xataa man pour sama gis-gis bu ndaw si amul sax njaga war nga koo jàngal àdduna ni ko ah naa la xamal dara nag da nga am ay nawle yàlla ba am doomu bàyyi da am ay doomu bàyyi te ma bëgg la lool waaye ku jigéen ki yéen ñaar question ku jigéen ki moom bu njëkkee xam góo xam jigéen ñëw fekk jabar ja du jànk moom lu mu war a wax moom. ndax war naa kaas. Eh, eh, loolu la góor ga waxoon doomam de xale bu góor bi dafa tukki jabar ji ëmb ci ginnaawam. waaw jëkkër ji woote ne naa ko. bi ni ko bi ma la koy may da ngaa lu ma leen wax boo nee ba koy fasa nga ñëw toog man du ma fasal kenn ci téléphone. Mm-hmm. waa ji jógee Europe ñibbisi. toog papa ji toog ndaw si toog papa ji ni ko mu ngi ni daa ëmb ba tey nag waxul ku ko ëmbal day jooy saa su nekk jël kaamil ni jëkkër ji mu ngi nii am. boo ma mënee waatal ni bi nga nekkee Europe ak léegi mooyoo faak benn nit am nga droit fase ko tey waaye bu fekkee ni mooy nga ak nit rek jàppale ni loolu la la yàllay fay ah mu ngi nii de leptoo faytoo mhm. mu ngi ah, ni kaamil la ngi ni am waatal bu fekkee ne mooyoo temps bi nga def Europe mhm. bu la neexee fase sa jabar boo mënta waat nag nga xam ne kon am na loolu am na cause boo def yàlla ba tax mu fayale lii waa ji sëgg di jooy tamaatu diinu li nga leblee tuddaanu moom lañ lay fay moom lañ lay fay gis nga gis nga man moo tax ma mhm. contre loolu ma contre amul ndaw dama koy fase wala dama koy weer pour lan yow ñaata yaakaar nga tas mhm. yow góoru Sénégal xale yi nga xamante ni léegi da ngay gis sax ay vidéo yoo xamante ni ay xale yu tuuti nga yaakaar nit ñi tal nañu leneen ci seen bopp ñuy def naka sa du noonu di yàq ay jigéen di fowe seen bopp di def yu kenn xamul yu yu salte salté salté yow nga pare ni damay weer kii nga xamante ni maa def ci moom sama dërëm jiitu ci moom ma takk ko kon yow doo éducateur. Mm-hmm. Mm-hmm. éducateur. Mm-hmm. da ngay ñëw sax am na ñoo xam dañuy yor carte taxaw ci mbedd mi am nañu droit am jëkkër. borom carte yi. waaw da gis góor gu baax takk ci nit. wallaay wallaay si ko yar ko. wallaay mu sëy sëy mu sëy bu rafet. sëy bu rafet. nit dëgg bala muy mat kilifa du ci sikkim du ci du ci nekk mag âge du ci leneen nit dafay responsable. dëgg la. nit bu ñu la joxee dara defar ko da ngay gis kilifa mu nekk xale wala mu nekk mag papaam wala magam ñu jël njaboot bi jox ko mu yar leen yar boo xamante ni leer na ni ko bu fi papaam nekkoon du leen yare noonu. dëgg la du ñu am boobu éducation. loolu la ñuy ñaan ci ci góor te loolu mooy meññeenteef bi nga xamante ni moo baax ci suñu senegal gii mais li ñu gis léegi njaga sacrifice. yàgg mm-hmm. na ma yàlla baal bu élection jub see ñëpp seen fikki tam mm-hmm. élève buy dem école. sa yaay wala sa maam mooy jàpp ci sa loxo. Mhm. doo génn école bi tànk jël si wuñ la. ndax lan xale mën na dem boutique boutique bi nekk ci bopp koñ bi ci ay minutes mu génn dootoo ko gis. abadan dootoo gisate xale bi. ñu ni sacrifice li dugg ci suñu dëkk bi lan la. ñu ne ay jinne yeewu benn jinne yeewul. jinne bu yeewu ñoo ko yeewu alal la ñuy wër alal joo xamante ni doo ko yóbbaale fenn du dem fenn. Mhm, mhm. mu jaral la nga lor sa mbokk. buñ nee la rayal nit doo rey ko ci sa biir kër. dangay rey ka nga xamante ni mu xool nga ni kooku amul nga jël sarax soo xamante ni boo ko joxee kooku dootul wér ilaa yow mi diin nañu moytu sarax yi nga xamante ni ay saraxu ndawal yoo xamante ni mooy tombeek période élection yi ay musiba naarulaay lañ ciy def di ko jox nit ñi nga xiif ñu tolloog jamono boo xamante ni metti na dëkk bi metti na ñu jox la ko nga togg ko lekk yaa ak sa njaboot mu lor la lor boo xamante ni nga dee sax daf koy gën. ndax boo feebaree doo am loo fajoo. message message boobu nga joxe mhm. yéeme na lool message boobu jamono yu politique la ñu ne. jamono yu ut la ñu nekk. nit nag bu màndee ci sàngara xamatul lu xew. te mooy nit ñi bëgg nañu ay ndomba tànk. nit ñi bëgg nañu daraja. sacrifice bu nekk dinañ la ko tegtal. nga dem sëriñ si nga xamante ne tey jii luñ sentir lañ lay wax. indil nangam wutal saabu néew wutal nangam ñi ci margo yi. Mhm. ñoo ngi leen di ñaan gën leen a vigilant. parce que politique élection jub si na yéen ñi nekk ci almeer yi itam wala pareil nañu dimbali ñu ne ci almeer yi parce que nit ku ne ñaari bët nga am doo gisee mhm. ginnaaw te itam almeer daa yaatu mhm. boo taxawee fii nit mën naa tëbee ginnaaw mhm. jàppale leen ñi ci almeer yi ngeen leeral leeralal leen làmp ya fa ne du ñi ci suufa bëgg ay làmp mais ngir dimbali kaw ñi ci kaw ngir di xool di ci yi parce que fi mu toll nii nit ñi lu ne lañ leen di sax lu ne la ñuy def di ñaan woyu jur ni ko waxee moytu leen di dundee moytu leen di dundee sarax bu ngeen jot jël am na sarax yoo xamante ne boo ko lekkee dootoo wér de. am na ñoo xamante ne dañoo nen ay kër de. nen boo romb ci mbedd mi sa yoon newu ci dévier ko dem sa yoon bul ko omelette bul ko bul nu mu tudd bul ko baxal waaw nu mu tudd euh, guro joo romb ak ay danku nàkk dévier romb guro goo romb léeg-léeg nag léegi nga commencé romb ay paaka ak ay ay danku li nu mu tudd doomu taal ci ci ci ay koñak suufu otoog lu nekk ma la wax nii la wattaqu yawman turja'una fiihi ila llahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun njaga ku def doomi jaambur dara yàlla noppee naa téye sa conscience ba yomal xiyaam. walaay dëgg parce que gisu na nga xalaat ko. jaa ngeen jëf mbokk yi eh, Khady Sène eh, journaliste la ca Thiès eh, moo ngi andi xalaatam ñoo ngi koy rafetlu bu baax Khady maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Thiès gépp di nuyu bu baax a baax Noox ca Colobane du Dieye ca marché fii Méthié di nuyu bu baax Marème Ndaw ca Italie Monique sama jigéen sa France di nuyu Ndeye mbay Gakou taaliba Cheikh Marème Pouy ca Angleterre.